ñëpp xam naa ne yëg nañ euh, coow lu am diggante pharmacie nation ak euh, la grande pharmacie dakaroise ndaxte buñ leen buggee fàttali mbir mi euh, immeuble bi IPRES nga xam ne fa la pharmacie dakaroise nekkoon dañ ko waroon a defar si loolu nag lañ wax ki fa nekkoon muy madame Aïcha Goudiam ne ko da nga war a toxalu tuuti le temps que ñuy defar immeuble bi bu loolu weesoo nga dellusiwaat waaye mbir mi dafa am leen lu ci xew biñ demee ba immeuble bi pare ah madame Aïcha Goudiam war a dellusiwaat ci pharmacie ñu ne ko léegi loolu mënatul nekk ñu ne ko li tax direction ne ko léegi yow fi nga nekkoon da ngaa def transfert maanaam da ngaa toxalu te yëgaloo ko. te moom bindoon na ñoom ñëpp muy direction de la pharmacie muy ordre yëgaloon na leen ne damaa war a toxalu provisoirement maanaam ndiggandeku le temps que immeuble bi ma nekk ñu defar ko ba pare. ci loolu euh, le direction bi de la pharmacie defar benn arrêté ne léegi pharmacie nation da koy jëlee fi mu nekkoon yóbbu ko fi pharmacie dakaroise nekkoon. ah ñu ne ko nag loolu nag loolu du yoon ndaxte mënoo yëkkati benn pharmacien dugal fa beneen pharmacien te kooku arrêté mi ngi nekk en cours ci loolu bi ko syndicat bi yëgee mu si dox ay tànk jàmm jéem a gis directeur de la pharmacie ay yooni yoon ngir waxtaan ak moom ngir mbir mi ñu xool nan lañ ko mun a régler ci jàmm bañ coow am ku nekk delluwaat place am waaye nag gis nañ ne antuur ñu ëllëbatiku bind suñ jëwriñ de la santé moom tamit gisee nañoo moom bind nañ ko waaye tamit mbir mi antuwul si loolu lay na nag léegi ah nañ dem si yoon bi ñu demee ci yoon muy syndicat bi ak docteur Aïssa Goudiam yoon muy chambre administrative de Dakar jox ko dëgg bi mu ko joxee dëgg nekk transfert bi pharmacie nation waroon a def yóbbu ko fi pharmacie dakaroise nekk mu annulé ko bi mu ko annulé ministre bu wëlbatee ko nag jëlaat beneen arrêté ne léegi madame Aïcha Goudiam yow sa arrêté bi ñu la mayoon depuis 1981 pour nga exploité sa pharmacie arrêté boobu léegi dama koy niinal yow léegi dootoo mën a nekk pharmacie boo xam pharmacien boo xam ne mën nga continuer di exercer say activité ah syndicat nag bi mu jotee ci loolu ñu ne nag ah fii dëgg amatu fi nag léegi li war mooy ñu jéem a xool suñ taxawaay si loolu nag lañ oote assemblée générale bi ñu ootee assemblée générale bi assemblée générale dafa décider jël ay résolution première résolution bi mu njëkk a jël mu ne nañ fexe ba docteur Aïssatou Diam ñu delloo ko ay ay wareefam ak ay yelleefam mu delluwaat fi mu nekkoon deuxième résolution bi ñu ne léegi nañ jéem a bind son excellence monsieur le président de la république ngir mu àtte ñu ndaxte comme que ñi yaakaaroon muy ministre bi ak directeur de la pharmacie ah, waxuñ ci lu leer ñu ne léegi nañ gis président bind ko bataaxal ngir mu wax ci mu artu ci bi loolu weesee aussi ñu ne léegi bu dara amul ajuma bii di ñëw incha allah le 22 pharmacie yi dañuy tëj 8 heures ba 15 heures waaw dañuy tëj 8 ba 15 heures ngir xool suñu njiit yi naka lañ war a taxawewaat ci mbir mi buñ ci taxawee taxaw taxawaay bu rafet bu baax ñu continuer ubbiwaat pharmacie liggéey.